waaye sàcc bi tey dafa am nday sàcc receleur receleur bi tey mooy la conseil constitutionnel la conseil constitutionnel tëdd na le conseil constitutionnel xam na li màkk bëgg waxoon nañu ko itam waaye dañu jàppoon ni gor am na ba léegi ci réew mi biñ ñu nee ministre bi nga xam ni moo ko yelif te du mës jël ministre bu neutre bim biñ ñu ko waxee dañu yaakaaroon ni sept sages yi président bi war a pare au mois d'août dina am lu muy rus wala mu am lu muy jomb waaye amul gàcce amul lu muy rus amul lu muy jomb ñu ni ñu la mu def ñu wax ñu ko loola tey mooy préparer coup 2024 ndax moom dafay def ay sondage xam na ni Yewwi rek mën na ko mën na ko gañe mu toog ba ci guddi keroog bi ñu waree voté loi bi nga xam ne mooy yokku député yi daal dee ne nañu jël juróom-ñaari député yi ñuy yokk génne ko ci juróom-benn fukki député yi nga xam ni moom la ñu war a séddoo biñ ko defee Mamadou lamin jàll mii mooma ne Macky de puus nañu pour ñu ànd ànd boobu ñëw defoon na ay sondage ci Yewwi parce que yéen askan wi yéen a ànd ak Yewwi waru leen yewi yewi du leen war waru leen yewi yewi du leen war élection locale yi ngeen war Macky Sall ni ko yéen yeewi ngeen àndal waaye dafa am lu ngeen ñu santoon da ñu war ànd leen su jëlee 112 députés def ko ci département yi bu ngeen àndee gañe ko ñu jël deuxième muy yeewi ak troisième muy wàllu ñu ànd loolu cocktail de tonnerre la bombe la bombe moo ko tiital ba mu ko tiitalee xam nañ ay pexeem ndax nekkoon nañoo moom bu erreur amul woon it dina lijjanti erreur ba dugal ko ci liste yi bu erreur amul woon it mu ni musooru Aïda Mbodj gi moo ma dérangé yàq na liste yi damay yàq liste yi parce que njublang la càcc gi muy sàcc il faut mu am ñu ko ciy dimbale conseil constitutionnel boobu nag tey moo ñu bett moo daanu ndax dafa taafentoo li ñu tuddee dernier recours dernier recours am boobu la sàngoo waaye dafa am lu ñu wax fii mooy yéen peuple bi yéen ñii yéenay la dernier recours yéen ñii yéenay la dernier recours yéenay d'accord ndax yeewi day bokk wala ndax yeewi du bokk yeewi nag dafa war a bokk jëmm yi amul solo majorité bi moo am solo assemblée ñun dañu nekk ay député ñun ñii ñëpp ay député lañu waaye député assemblée boo xam ne amuloo majorité jariñul dara majorité bi mooy doxal majorité bi moo mën a seet nan lañ leen di faje pour seet xaalis bi ñuy dugal ci paj mi lan lay jariñ majorité bi man moo mën a seet nan la école di doxe majorité bi mën moo mën a orienté budget bi pour que duñ ci def loo xam ne corruption lay jariñ mais dinañ leen ci dimbale ba yëfi dootul cher war nañoo subventionné denrée yi ba denrée yi wàññeeku ba pare nag ba pare nag waxu leen li muy def dafa soxla majorité assemblée waxul ñu troisième mandat de mais moom nee dafa bëgg ba limitation de mandat dootul am dafa bëgg ba mu nekk fi giiru dundam dafa bëgg nekk un roi dafa bëgg def Sénégal royaume dafa bëgg di yëlif am ay dak yu koy topp xaw ma di ko nangu wala du ngeen ko nangu waaye ñun de ñun fii ci yeewi yéen waa askan wi lu ngeen ñu may sunu fit duñu ko xañ yéen askan wi lu ngeen décidé ni moom la waa yeewi di def loolu la waa yeewi di def yeewi askan wi lay déglu yeewi askan wi lay dund yeewi askan wi la àndal duñu tàggoog yéen bu ñu at demee assemblée am cette majorité majorité boobu moom mooy doxal li ñu bëgg mais Macky Sall du doxal li ngeen bëgg ndax nekkaluñ fa askan wi moom nekkalu fa askan wi ay député seen bopp lañ fa nekkal Macky Sall te contrôle bi nga xam ne war nañ ko def ci budget bi defuñu ko yokku na keroog ba nga xamee ni ca la wax ni ah, daf dañuy toog fajar gi mu waxeen dañuy toog ci la yokk essence bi fii mu nekk mu ngi subventionné waaye bu toogaatee wala élection yi passé dina yokk gasoil bi te gasoil bi bu ko yokkee au général lay doon yëf yi yokk ba kenn dootu ko mën a jël te ñun xamuñu sàcc xamuñu randal yëfu jàmbur ba ba doole yi ñooy torox wa salaam jërëjëf jërëjëf dañuy continuer ak allocution yi jox kàddu gi monsieur Assane Dia aca ñu tàcc ko bu baax a baax asalaamualeykum su ma jaaree ci président Khalifa Sall président Ousmane Sonko président Déthié Fall jaar naa ci ñoom nuyu naa leen yéen ñëpp ma bëggoon leen xamal lenn tey am na ci ñun ñoo xam ne dafa am lu ñu préparé woon. naa leen ko wax léegi lu rëy lañ préparé woon naa leen ko wax léegi mais dafa am ko ko yàq le préfet de Dakar moo ko yàq dañu prévoir am ñenn ci ñoo xam li ñu prévoir woon mooy manifestation bi buñ ko interdire woon pale lañu jëm kon tey le préfet de Dakar a sauvé Macky mais Macky Sall loolu la xamoon moo tax mu daw Macky Sall est un traître je vous demande de la répéter Macky Sall Sall est un traître Macky Sall est un traître Macky Sall a trahi le peuple sénégalais Macky Sall bu mu nguur gi dafa digoon dina wàññi waaye tey lépp a yokku bu teelu diwlin léegi mi ngi jar huit mille cinq cent francs tey euh, sachet Nescafé bu juróomi dem amatul lépp yokku na nit ñi lekkatuñu naanatuñu nit ñi sonn nañu mu yaakaar ne mën na nax enseignant yi ak yenn secteurs sociaux yi ne daf leen yokkal seen salaire en réalité yokkul salaire yi dafa yokku njëg yi pour am lu mu mën teg salaire yi te lool du jëriñ dara travailleurs yi parce que travail yi dañ koy jël di ko jëndee lu ñu dundee kon en réalité yokkul salaire yi xam ne Macky Sall le traître Macky Sall l'homme sournois Macky Sall le manipulateur Macky le comploteur Macky le comploteur des voleurs Macky le parrain des détournants des deniers publics Macky voilà Macky qui arme et qui encourage les góor Macky Sall doit être jugé pour haute trahison. Voilà la vérité. Ana la jeunesse estudiantine Cheikh Anta Diop. Je voudrais vous lire, en tant qu'ancien dirigeant du mouvement étudiant,